ñu met liggéey am nay maître chanteur yi fi nekk papa Sénégal xam nañ ko Pape Alé ci la bokk Nafi Ngom Keita ci la bokk Mody Niang ci la bokk ak ñeneen ñi ci at ñu ngi may chanteloo di ma xas bëgg a ni man Cheikh Oumar Anne nit ki nga xam ne maay wane cac gi am ci réew mi ci ñuy liggéey réew mi nguuru Macky Sall bokk na ci nguur yi nga xam ne àddina bi yëpp càcc ba a liggéey dañ ko fi dindi mais ñoom kon ay politiciens lañu dañoo jëkk ne il faut ñu wane ne loolu mooy nguur gi loolu nekkul ci nguur gi man du ma boobu juróomi at wax nañu may noppi parce que nee naa ñu ay maître chanteur lañu te xam nañu ne ay maître chanteur lañu ci livre bi ñu bind dinaa wane kanamu Sénégal yëpp ay maîtres chanteurs lañu parce que dañoo jël dina ab rapport la du rapport dañoo wax lu leen neex te li ñuy bind ci yëpp nee nañu du maa def man complice la damaa jàppale kenn bu njëkk ba man la léegi complice la parce que nee naa juriste la wax nañu tey ba mu pare ki bind livre bi ñamewul tudd sama tur parce que nee naa damay jël droit mais loolu du ko ci génne livre bi Pape Alé Gindiko Macky Nafi Ngom moo ko bind preuve yi mu am li qui bind ci livre bi y Nafi des informations information ci gestion wu coude. dem ak ne continuer ak man parce que si na ma fenn danuna répondre devant la